bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi mbokki Sénégal su ngeen bëggee xam le numéro un des carreaux da ngeen agsiwul fii si Touba jàppale ni mbokk yi bi tay foox accès ba léegi dina ak société bu nu ràññee loolu si wàllub carreau si àdduna wërngal këpp ci liggéey bu baax si ay carreau yu mucc ayib waaye nag mbokk yi fii si Touba seen représentant bii di Touba xéewal carreau nekk si Touba 28 kër Serigne Mbaye Sarr jàkkaarloo kër Serigne Abdou Wadour lépp lu ngeen itteewoti si wàllub carreau ngir seen ay travaux si ay carreau dernière génération mën a dékku mbooleem température waaye nag liggéey bu am étanchéité pays bu xéewale boo dul am faneen fu dul fii mani mbokku am nanu grès poli 40 sur 40 ak it grès poli 60 sur 60 amit porcelaine 40 sur 40 60 sur 60 amit émail dimension 30 sur 30 40 sur 40 waaye tamit am carreau faïence sur 30 25 sur 40 ay antidérapant ci ñaari façon am nanu antidérapant décor antidérapant crin sur amit grès sédam bari ay façon loolu première qualité am na fi également ay MF ci dimension 30 sur 30 am nañu couleur bu beige amit couleur bu gris ah mbokk yi lii nag mooy la qualité totale sa su ngeen itteewatee produit yu baax bëgg ay matériel yu mucc ayib aju si wàllub carreau bu ngeen agsee fii si Touba xéewal carreau boole magasin bu jënd di jaayaat dama ni jaxatul dem usine ba fii la gën a yombee fii la gën a yembee fii la gën a xéewale ak si Sirxam fu ngeen bëggee lépp lu aju si wàllu sanitaire ci matériel de qualité am nañu lavabo ay chaise anglaise wala ay robinet ak lépp lu mu si mën a doon mbokk gaaw leen gaaw ñëw def seen ay commande ñu defal leen livraison lu mu sori sori si biir Sénégal wala si biir su nu ay oto yemb na gaaw leen gaaw woote si 77 501 24 34 76 585 53 46 ah bu ngeen bëggee nag seen i mëbët antu ñëw leen seet si représentant Tayfort di Touba xéwal caro si Touba 28 lépp yemb